loo seen ci duniyaa bi jeex su dee lu naqareeg lu neex moo tax ba foo gis nit ku baax du faale duniyaa xarnu biiw maam Seex Mbay duniyaa la berool ñuy weesaloo kenn du laal morooma bam xëy di rijaal lullaay fii ci xarnu bi maam Seex Abdul yaag mbiram boole ko teg ginnaaw loxoom kontaan xanaa kontaan parce que amoon ci yaakaar xamoon ne xamoon ne tamit fii rek la ñuy mujjee ndax maam Cheikh léppam diine la kon ñoom ñi nga xam ne waa kër gi lañ dañuy gën a sant rek gën a sant rek te des na yeneen nag macha allah kontaan na ñu ngi sant yàlla baax ci wér tuwaakal macha allah alhamdulilah tawfeex mag la ci jullit ñëpp rek ndeysaan kon yal na yàlla barke lépp amiin yal na képp fu ñëw suñu borom jéggal la dafa la tawfeex mu mel tawfeex la tawfeex bu am solo la waaw bu am solo jërëjëf nu ngi waaj a màggal gàmm gi macha allah tuwaakal sant yàlla waaw Sadio bisimilah nga wax ñu ci ubbite jumaa ji waaw salaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi fii ci kër Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye bii di aljumaatu wa huwa sayyidul ayaam di bis bi gën ci di sang bis yi war fee def tey defoon fi ubbi dégg jumaa ji jumaa ji nag fii fi la jàkka ji nekkoon waaye bis na tey tuddatul jàkka ji jumaa ji la tudd ndax maam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye fii la jaamoo boromam ba suñ borom jox ko ismulaay ansam mu amee ko fee ca rand ga waaye fii nee na yàlla moo ko rëddal boppam mu teg ci ne turabul bayti sama suuf wa maa zamzami ak samsam ma njëkk màkka binaa moom lañ tabaxee baytullaay xaram moo tax nag kii di sëñ Saer Mbay moo ko ubbi waaye nag nan fàttali ko suñu jëmm ja suñu waaja muy sëriñ Yuusufa Mbay yàlla ko yàlla dolli ay leeram tas ñu barkeem moo tegoon jumaa ji boo déggee ci wayi ma yëkkati ay quelques bayit jëmale ko ci ubbiteg jumaa ji dama ne ci barke borom kër gi lay dooree ci ubbiteg yi sëriñ Saer Mbay sa ay ji moo tombeeg ubbiteg fii barkeelu fi lu wax la bis bii bisu profité fii ëttub Seytaas la waaye rootukaayu way Mariam kon ponkal mu ne raam na fi ku nekk seet si na fi jëmale ko ci bàyyi soxna Sofi fii fii la mbir mi Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye nekk koo xam si ni ku yéema la boo déggee ci biir wooy wa man a Serigne Sayar Mbaye Baye Abdou Salam Mbaye bàddil na la Serigne Sam Mbaye gërëm na la kii fi mujj sëñ Youssou sant na la waaye tey jii yàlla jiital na la yow maam Cheikh Mbaye rek ngay nooyee munoo def ak ku koy fooyee mën nga sëkk Mbaye waaye ñun yàlla lan lay bàyyee ah, kookoy sëriñ Seer Mbay moo tax ci biir way wa ma ne ko moo tax ma ne ko amul Baye Seer yaay sëtu borom bukki kër gii nag loo fi liggéeyul amul Baye Seer Mbay kañul kër gii loo fi liggéeyul amul moo tax ma ne ko Baye Seer Mbay kañul maam Seex Mbay fay na la tey moo tax ma yëkkati kaddu di la way ngir barkeelu samay man mu xeebu message yi foofu la ñuy daaneele kaddu yi di wax ne maam Seex mooy borom Kanzul Kunuz bi fadlillahi xadjani oh, fati ko bépp taalibe loo am indil fii dañu liggéeyal maam Cheikh laaj ma lu tax. Mhm. sasul kenn waaye maam Cheikh Mbaye da ne inna saadata fi lxuqbaali man tabia sabila man kaana li rahmaani qad qasaa inna al wasilata lil matlubi fi xidami wa basil maali wa jaahi lillazi jamaa maam Cheikh Mbaye nee na ab taalibe day sippi darajaan wàccee boppam taalibe du rëy taalibe day joxe alal taalibe day joxe lépp loolu la méngoog la sëñ Tuubaa wax na ñoom ñaar dañuy benn mm. tuubaa li abdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin sëñ Tuubaa dafa jiyee dafa dafa yeewu lëhumu la wax lëhumu laam xamim mooy il avec es ñoom nit yàlla yi bi xidmatin nga ñaqal leen aw bi xubbin nga sopp leen aw hadiyaate nga jox leen addiyee fii ci kër maam Cheikh mooy kër sëñ Tuubaa kër sëñ Tuubaa mooy kër maam Cheikh sëñ Sam Mbaye moo wax ci lamiñam ne maam Cheikh Mbaye nee na man ak sëriñ Tuubaa ñëmul ndox waaye dañoo am ak pay maam Cheikh Ahmadul Kabir Mbaye mooy sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa mooy maam Cheikh li koy bir firndeel maam Cheikh Ahmadul Kabir Mbaye ku xam ne ni moo jur sëriñ Sam waaye sëriñ Sam jëm ñi sëñ Bamba ah, ndax li nekkee jëm ñi sëñ Bamba sëñ Bamba mooy numéro 4 sëñ Sambay sëñ Bamba mooy numéro 4 neel benn sëñ Sambay mi ngi dund 76 ans 7 plus 6 ñaata la 13 3 plus 1 4 jumaa ji le 13 sëñ Bambay numéro 4 maam Cheikh numéro 4 ndax ñeent xalifa la am ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulilahi allazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah mbokk yi taalibe yi tey nag xam ngeen ni bis bu historique la bis bu rëy la bis la boo xam ni dana rester gravé dans les annales ndax tey mooy bis bi nu ubbi la grande mosquée de Maam Cheikh Ahmadou Kébir nit ñi nag jóge fu nekk ñëw Louga nun nag ñu ñëw dal ak sunu yi jii di Seydina Mohamed Diop ñu nekk ak moom ca ndaw ba tey sunu borom def ñu juboo suñu borom def ñu bokk ay bëgg-bëgg ba tey jii ñu dal ak moom waaye ñu ñëw ci ubbiteeg jumaay maam Cheikh Ahmadou Kébir mi nga xam ne wax na ni fi ba daan jaar di dem ci suñu borom mais aw na fa ba tàyyi te mosu faa doog tànk melentaan maanaam comme ni ko mës ko wax wax da it man Cheikh Ahmadou Kabir yàlla xëyewul kenn bonte ma déedéet te lu ma yàgg yombal xiyaam it ku ma woo ma la lu ma yàgg-yàgg yombal xiyaam man Cheikh Ahmadou Kabir ku ma woo ma wuyu la nekk nitu yàlla boo xam ne nii nitu yàlla ku ku wegu sama bàyyi mas naa jóge fii ci Kébémer ne day dem gànnaar bi ñu egsee Louga fii moo ku wax góor gi jaar ga sec ñu ne moom wàcc fii ci Louga ñëw siyaare alaaj ji li soog a dem ñu wàcc ñoom ñaar yëglu fii ci alaaj jii li mbay mun leen yéen kay mënu leen a dem fenn dangeen di yem fi ban nee na nu yem fi moom ayub bis boo xam ne nii ne nu nekk terale lanu ko moom alaaj ji li mbay nee na waaye dama ko wax ne ko sa maam de daf ni kanzun kunuusi bi fadlilaahi xat jaani fa kayfa laa wa bihi rahmaanu najaani mu ne ko sa maam dafa wax ne moo yor ñaari koppar foo sa ba sa baay Cheikh Ahmadou Kabir dafa wax ni ma lu tax nga weddi ne yor ñaari koppar foor yi man sax yor naa lu ëpp loolu maam Cheikh Ahmadou nee na yor na lu ëpp loolu foofu ñaari koppar foor yi ngeen di werante yor naa lu ko ay dun matee safirat yor naa loo xam ni bis penc ku bëgg ma yóbbu ko àjjana ma yóbbu ko àjjana man Cheikh Madou Kébé ban boo xam ni la amay julli ci jumaa ji ma yàgg ma ni amet ma ni xaa euh, jiili mu ni ah ma ni ko maa ngi lay seedeel ne nitu yàlla daraam du réer jumaa ji jumaa ji ñu tey ji jumaa ji andi andi andi ku jumaa ji ñu sukk tey muy jumaa joo xam ne nekkoon na ci statut bu yàgg ndax maam Cheikh Mbaye ba mu joxañee loolu kenn xamul kañ la waaye ñoom danoo bokk ci àllamtana alxayba atta sirtu muntabixan antal alimu lesi àllamta yàlla dañuy gis lu di ko gut Cheikh Ahmadou Kabir rek daf bu ma fi jógee itam ku ma woo ak loo ma soxlaa rek ma wuyu la wax na ni keroog bi fi xaadimu rasul jógee ma toog fii man ci Ahmadou Kabir ay ay bi soog a dem siyaare ji xaadimu rasul fa mu tëdd mais bi ma ne ko asalaamualeykum nee na bi mu ma tontoo defe naa ni woon fu ne ci àdduna dégg na ko déglu limaam suñ lii rek ci làmmiñu sëriñ Saam laa ko jëlee nee na keroog bi xaadimu rasul génnee àdduna ba moom ay ay bis maam Cheikh Mbay dafa dem Touba bi mu demee Touba ba dugg ci barabu xaadimu rasul ne ko asalaamualeykum yaa xaadimu rasul nee na waaleykum salaam ji defe naa ni woon ku ne ci àdduna rek dégg nga li ma sëñ Tuubaa fay kon maam Cheikh moom yàlla xëyewul wenn wàll yu gonte ko la wax te dëgg la sama bàyyi nag ne ko koppar fooru xaalis bi sa doo yow mii yow wala ji koppar fooru xam-xam bi sëriñ Sam mii kon kon li mu ne yor waaw am na ba doy na nag jërëjëf. basta jaar basta. maam Cheikh nag. ashna shaaribu rayyaanu. xat zuxtu min qabli fa zaawiya baada zukri yaa xillu yaa hibbu. fa billahi jaawastul maratiba kullaha wa min bahri zaati laahi naaliya wal allu kooku nag du ma nawlam nit ñi. Cheikh Amadou Kébé eh bàyyil gàdd yi <laughs> looy gàdd ci ci jëlee leen ñu ko yóbbu ñu ko. ba jàdd ba jàdd. xam nga maam Cheikh Amadou Kébé dafa wax ne. booba sëñ Mbàkke Bousso moo ko doon seet lu bëgg mu wax rek a tax mu wax ko loola. xam na ko bu baax. xam na ni wàllu yu kamal la. xam na ni ca aarifiin billaay la bokk. xam na ni ci tamkiin yi ñan naan seen géejug jëmme yàlla de te la Cheikh Amadou Kabir bokk mu ni ko laaj nag bëgg mu wax rek mu ni ko xanaa yow de ndax mosu nga ca leeri borom suñu borom ja ma sëñ sëñ Mbàkke Bousso ko doon laaj loolu sëñ Mbàkke maam Cheikh Mbay mu ni ko nag mu di ko tontu nag na ko ashna shaaribu rayaanu qad zuqtu min qabli fa zawiya baada zukri yaa xillu yaa hibbu fa billahi jaawastu lmaratiba kullaha wa min bahri zaatillahi naali wal allu ne ko maa maay ko njëkk a naan Cheikh Ahmad Bamba ba may naan sax gis nga gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam eh, maa ngi sant njabootu maam Cheikh Ahmad al Kabir Mbaye gi fi daje tey Eh, te ki ci jiitu mooy sëriñ Abdul Xaadir Mbay mii nga xamit nii Baay Ibra Mbay mi nga xamit ni moo nekkoon xalifa maam Cheikh Madal Kabir Mbay mi nga xamit ni te ji Alaaji Sàll Mbàkke fi la ko fekkoon ci kër maam Cheikh Madal Kabir Mbay gi tey ñaari noppam yii moom sëñ Fall dafa tey ñaari noppam wax ne ku yàlla sàkk nga sax ñaari nopp siyaare Ahmadou Saxir war na la kon man kat alaaji fàllu mi nga xamante ni xaadim rasul mooy sama waajur man loolu moo tax ma ñëw siyaare si maam Cheikh Madal Kabir Mbaye waaye mu fekk fa waajuram nag moom mii muy Baye Ibrahima mbay yàlla yàlla fayal na ko est-ce que xam nga ni jumaa ji la di tëj yi lay siyaare ñu koy inauguré tëngal benn na ko Baye Jili Mbaye jëloon ay milliards teg waxoon ni da koy liggéeyal maam Cheikh Madil Kabir waajuram bu tedd wa bàyyi ñu leen di ko dafa jotul sa waajur bu tedd ba yàlla na yàlla fayal na ko ndax bu ko bàyyi jël defaroon dana mel nii tey jii bëgg waaye kon ñun bu ñu ko def sunu dara kon bàyyi yibra nun ñi la bëggoon sunu defar tey kon maa ngi sant bu baax sëriñ Abdou Khadre Mbaye ak doomam ji mu àndal muy alhaaji Modou Mbaye alhaaji sëriñ Mor Mbaye jur ko mi nga xamante man mooy sama wasiila ci kàppaarab maam Cheikh Madou Kabir man maa ngi ci jibal bàyyi Serigne Mor Mbaye yàlla na yàlla fayal du ko bàyyi Serigne nit ku baax nit ku yiw nit ku bëgg Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul bari na ku nuyu doomi Serigne Touba bari na ku nuyu ci tund njàmbur yi waral na ko nuyoo sa kër bàyyi alaaji Modou Mbaye muy sëñ Mourtala Mbàkke ak la ko tàmbalee ci sëñ Basiru ñu ci bari ba ci sëñ Saalum sëñ Saalum bi nga xamante ni moom la jamono mu nekkoon xalifa sëriñ Tuubaa bi sa bàyyi di def rëdd jumaa ji sëñ bi ñu yónnee bi ñu ko inauguré yi euh, sëñ Sidi Muxtaar la fi fekk sëñ euh, sëñ Sidi Muxtaar moo bi jumaa ja war ak Baye Sambay moo tax moo teg xeer wa kon maa ngi lay sant di sant sarak yi nga àndal muy Serigne Cheikh nii Baye Sam Baye kon Baye Sam xam gépp rek yaay moom moo nga ca keppaar ba jóob suusu mbay nga doon wax ñu yaay la ci kër ga kon am naa ci ni yéen kenn mais nag kenn ci man jiili <coughs> ba mu dalee ñëw war ak léegi ëpp na 40 ans presque wax nga dëgg moo mën a présenté ci digga euh, coobare yi jiili yow sa nijaay yi jiili kii kon Serigne Serigne Modou Ndiaye Serigne Modou Ndiaye sa nijaay waaw maamam kon jiili maa lay sant bu baax di la gërëm di wax ne lëkk nee nañu pour lekkee alom ne ko gërëm ak cooy fii ñu toog ni tey jii su ma fi mënee def benn brique su ma fi sañee def benn brique c'est grâce à Serigne Abdou Khadre Mbaye ak El Hadj Modou Mbaye mii ndax bi ma ko jaay dama ko jaay bu pare mu mel ne mbaa mu wut amul carte d'identité booba kër gi amul identité mbaa mu wut amul identité <laughs> kër gi bi ñu ma ko jox moom amul amul amul identité kenn kenn kenn kenn niteewu ko moom mii ci boppam ak ak pexeem ak dugg-duggam mu fexeel ma ko ba wutal may këyit ba wutal ma plan wutal ma ndox wutal ma courant kon kat bu ma demee ba sañ di wax am naa kër bu may gàmmo kon du man moom lii la waaw sëñ Cheikh Ndiaye maa ngi lay nuyu yàlla yàlla fayal na yow itam ndax yaay sëñ Madou Kabir sëñ bu euh, sëñ bu kii nga ci sëti Cheikh Mbaye yi la kon maa ngi lay sant jëri bu baax di la gërëm damaa jóge damaa jóge sa kër rek yow dem këram moo dama doon dem fekk doom ñaan kon ñaan gi ngeen doon def sépp jëlee yàlla nangu na ko ndax Cheikh Baye dëkk na si tam mu am bu jàpp du sëb du saali fëy dina laaj jubli du xam ne yaasin moom sëy dina ba xam ne yaa doom doomi yaa sagale xol tey ma amal naanu xaalis dogal ma ni maa nga dem ba siyaare moom maam seex may ñaara moom solla dalu seydina Muhammad mu joot ma musalman tamba mu jot na man maay seydina seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi moo ngi lay dagaan te du la xaaraat ak a ñaan du lu soxoram ko ñaan ko gis defal ko yërmande sëriñ bi ñoo ngi tuub bàkkaar yi ñu tuub sëriñ bi moo ngi cebi sa xolam bu ko ñaan bëgg defal ko yërmande moom am seex may nee na ku tudd si wala du kër seex na sa moom mooy bàyyi sëriñ sa mbay moom mooy bàyyi bàyyi gi li seex mbay الله ربي وسلم مولا من أول بعد بس بقول سيدنا محمد moom maam Cheikh Mbaye nee na ma daru na benn bis dugul bi si Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam yow mi sa waay Mbaye du ne waayu keneen kanam boole

jërëjëf